mu waaw loolu xam-xam la loolooy xam-xam lu ma fay. ñaata xaalis la fay fële. nee na fay wala wérul. kenn moo ko faj. lu ma fay. dara ay secondes jàpp li nekk si moom génn ko léegi léegi. maanaam man maag sëriñ yooyu maag sëriñ yi duñ benn maa leen gën a efficace. waaye woy ma la sëriñ yi maa leen gën a efficace. maa leen gën a féete xale maa leen ëpp xam-xam te ay jinne laay xool ay désiré laay sol yu réew xoola bopp bi jël ko jël étoile bi gis nga ko yaa ngi koy gis man maa ngi ñoom duñ benn maa leen ëpp xam-xam maa leen ëpp fit nee naa ku ma maaseel jamono maa leen ëpp xam-xam yow moom di ko werante billaahi wallaahi tallaahi may naa la nga xool tele bu la neex wala nga xool ba sa dëkk wala bu la neexee ñu indi ko ba sa buntu kër ñu jàkkaarloo sa buntu kër ñu jaayante baatin jaayante xam-xam dajale ñu feebar ñëpp ñu faj leen ak yeneen nit yoo xamante ni tey dañoo am soxla loo xam ni maanaam pas soxla buy dem ay ay semaine loo xam ni faju benn fan la loo xam ni léegi-léegi lañ koy def ma jàngal la xam-xam yow sëriñ boobu man xale bu ndaw maa tey. na kay am am na ko fi ñëwoon yor béykat da nga ay minute sama yaay bi ma jur a ngi toog sama yaay loolu ko sama yaay looloo ko gën a jommal sama faj. déggoole ma la loolu du benn yoon. loolu du benn yoon. du ñaari yoon. li ngay wax du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon am na koo xam ne tey am na koo xam ne Louga la Louga la dëkk maa ko wax te dina ma seetaan. papaam dari woon bu doxee mu may ma terrain ana terrain bi lu an terrain bi ñu ma may. luñ ma jox. ana terrain bi ma papaam digoon anemu. bi ma ko papaam waxee ñaata at doxul. dama ko faj mu dox léegi léegi léegi appel vidéo papam tollu Europe di ko seetaan en direct en terrain biñ ma dig joxuñu ma dara moo tax séentuwu ma ko ci woon bu ma ko séentu woon damay sonal sama bopp soxlawu ma ko dem naa sama yoon maa ngi ci leneen tabaski màkk ñu dem amul leneen. tey tey dëgg yàlla euh, émission bi Alla Daouda Mine macha man mhm. man de li may tëjee est-ce que du ma tëjee <laughs> daa mel ni am na question bu mu bëgg a joxe. Vogue. jàllale question boobu. nee dafa bëgg euh, nga ñëw euh, ci Wally Seck chaque dimanche parce que euh, ay jinne yi dañuy ñëw Vogue jinne yi dañoo bëri Vogue. Mhm. waaw jinne yi dañuy soirée ji. Mhm. mais musiba rek man jinne yi man lañ dem di soirée Wally Seck nee naa la Wally Seck fu mu tëgg. fu mu tëgg waxuma ay nitam de man kese samay jinne dañ koy feesal kon jinne yooyu ñoo ma gën a bëgg Wally Seck nee naa la Wally ay jinne la yor gëmoo ko loolu question boobu yaa ko joxe mhm. Wally ay jinne la gëmoo ko vog del xool nit ñi ak seen yére yu rafet mhm. jinne fekk yaa ngi koy séentu ay tànku mbaam doo ko gis kam jinne ay tànku mbaam la war a wala nii la war a mel nii nga toog sa jëmmu ji kese mën nga doon jinne mhm. jinne bu la naree toroxal kese lay indi melokaan bi ko yàlla binde dañuy soirée ji yaay yu mbëkkanteeg ñoom ñuy couple ñu ngi def lépp si milieu yooyu noonu la ñuy gis nit sax intéressé wu nopp la nga génn ñu doon ngelaw dugg la loolu mooy indi kii naan maa ngi ko toppee fii ñaata nit laa faj yoo xam ne jinne soir leen toppee moo tax man la vog jinne yi na jinne yi gën a yokk mais musuba du am jaan bu ngaangul du matt déggoo ma de dama bëgg jinne yi di gën a yokk muy gën a jalaa ñoo parce que waali moo moom réew mi <laughs> moo ko téye si loxoom bojo bojo yëpp dañuy xaar waali baal leen ma si wax ji yéen ñi may seetaan réewu ma ku si nekk da ngay wax sa tolluwaay rek maa leen koy ñaan jéggal leen ma waali yaay seen baay waali sekk yow yaay seen baay barke sëriñ Fallou yaay seen baay yow laay tëjee tey sama émission parce que damaa kontaan da nga maa da maa sagal mbuur waali sekk waali da nga maa sagar biir mbuur waali sekk te barke Serigne Fallou may nga ma alee dinaa la may retour Dakar te bi su mu ekkee Dakar ñëpp xam ne la dëgg la man maay wax la Messi Wally sekk émission bi yow laa ko may booy xeex ba am ñu la xeexal nooy def. fàtte loxo toog. ah dafa am ñu koy xeexal buñ ko yëngalee rek réew mi yëngatu. Wally buñ ko yëngalee réew mi yëngatu te laal nañ ko nag. mais mën nañ yëngal réew mi de. mais jeu bépp la ñuy calmer mais tere wu ñu yëngal fu ñu dem dañ koy toj kon maa ngi remercier ñépp di la yow mi remercier sama gaay di gërëm ñëpp xam di gërëm waali di gërëm Benjamin Mbay si Njaay Mbay si Mbay si garaaw nag Mbay si Njaay Mbay <laughs> maa ngi maa nuyu Mbay si Njaay di nuyu kii nu mu tuddati di nuyu Benjamin sama sëriñ ak kii Amady Amady Badiane Amady Badiane maa ngi koy nuyu ak kii Arma Ndiaye maa ngi koy nuyu ak kan waaram daani Cheikh Anta maa ngi koy nuyu dimbali ma si ak kan. Cheikh Ñaan maa ngi koy nuyu. à partage ak kan. Assane Assane mu ngi lay nuyu le messi des jinne faramaanu jinne yaa ngi nii. Faatu Faatu bi kër waaw Awa. Awa sama doom ji maa ngi lay nuyu borom gintee essence bi gintee yaa ko téye fecckat yooyu yëpp dañuy xaar yow yaa tax fecckat yi di rey seen bopp awa awa yaa tax fecckat di rey seen bopp ñëpp yaa leen man doo seen morom xale bu ndaw nga dema koo fen instant bii waali mu ni waali téye way bi noonu nga téye fecc bi awa awa sama ah Njoogu Mbay aussi tam Mbay maa ngi koy kii nu mu tudd keroog ki fi ñëwoon kii kii Seex euh, Bamba Seex Bamba ñëw na Seex Bamba maa ngi lay nuyu Seex Bamba maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm na keroog seetaan naa si émission gërëmuma mais tey naa la dimbali ma gërëm na maa ngi gërëm ñëpp daal di nuyu ñëpp di sant ñëpp yaakaar naa man bu àq di am maa amee maa amee nit ñi àq mais xaw ma nu ñu koy waxee sax bu àq di am man yaakaar naa xaw ma nu ma ko mën a waxee. yaa ameel nit ñi àq mais waaw man maa amee nit ñi àq mhm. mais nit ñi luñ ma àq. parce que man ni may doxee la moo tax su dee damaa wax loo xamante ni damaa juum na ngeen ma jéggal su dee damaa wax wax boo xamante ni dafa ëpp nangeen ma jéggal mhm. parce que ay kilifa ñu may seetaan mhm. su ma aaloo damay wax lu wax bu lu ëpp ba pare pare di ko réccu maa ngi leen di ñaan yéen sama kilifa yi ngeen jéggal ma si wax yi may wax wax naa ba saaga mais dimbal leen ma ngeen jéggal ma ngir jëmmi Serigne Fallou sama àll moo tollu foofu saagaw ma pour réewande saagaw ma pour dépasser nit daf ma rëcc dama saaga pour rang bi jub Sénégal parce que boo waxee dégguñu la boo saagaa ñëpp dañ lay déglu Sénégal léegi saagakat yi kese la ñuy déglu dama bëgg ngeen dégg li may wax maa tey man maa ko wax le Messi maa tey na réew mi am jàmm kon sama gars yi ñu yemale foofu émission bi ba beneen yoon incha allah boo amee looy jàllale nga jàllale ko.